waaye ne yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyil ma wax la li ma xalaat nañu wut suñuy socc ñun ñëpp ku nekk dagg soccam rek di socc nag fas sa kanam mu am kenn ku jóge woon ci yéefar yi ñëw gis loolu mu dem ne gars yi ñoo ma gis ne mer nañu de dañoo mer ba ñu ngi lekk ay bant xam naa ni bis bu ñu jàppee mbir mi du sotti loolu ci bataille psychologique la bokk moo tax ñi ma àndal ñëpp xam nañ ni dañoo démarré campagne bi ma ma xawoon a jóge ci grippe démarré ko ak sëqët bu ma xaw a sonnal médecin bi bindal ma ay past yu may jël pasti Valda Euh, mu ngoog euh, ami yaakaar naa ko ko déglu moom Ousmane Sonko euh, tontu na déjà ci coow li nga xam ni daanaka mu ngi jóge woon ci la nga xam ni moom lay seex à chaque fois buy yéeg tribune leneen li nga xam ne aussi bëggoon naa nga àddu si moo di déjà Euh, te ni mu gisee mobilisation bi nga xam ni euh, coalition bi ngeen bokk di Pastef euh, ñu ngi koy def depuis bi campagne bi commencé ak léegi waaye tamit li nga xam ni tey opposition bi daanaka Papa Djibril Fall ak Amadou Ba bu ñu leen dégloo moom la ñu wax muy réew mi ci boppam ëllëg bu ëllëg ëllëgu réew mi ci boppam fi mu toll nii dafa nekk ci guddi gu bët setagul beneen bi moo di tout simplement la question des trans du de la transhumance au Sénégal. foofu. bu fekkee nekk euh, Amadou baa ngay wax Amadou Ba dinaa taxaw ci moom tuuti ndax ñoo bokk Parcelles Assainies te yaakaar naa balaa nga naan naam danga fay nekk parce que Amadou Ba booy wax ci baykat yi ne boo leen amee majorité à l'Assemblée nationale di nga ci di nga ci def ay jéego da nga koy njëkkee fa nga dëkk muy sa base muy Parcelles Assainies Amadou Ba war ngeen ko laaj lan moo tax du gagné bureau de vote Amadou Ba war ngeen ko laaj lan moo tax mënut a gagné Parcelles Assainies kon balaa ngay xëccu ci baykat yi wàccal fi nga nekk ba pare ndax Amadou Ba weglu waa Parcelles Assainies moo tax à chaque fois waa Parcelles Assainies di ko wan ne sa bureau de vote sax dañ la fay dóor muy jàkkaarloog ay ndaw yu ndaw nag ñoo xamante ne yoruñu li mu yor tey yoruñu alal bi mu yor di jàkkaarloog ñoom di jàkkaarloog Amadou Ba di dugg ci kër yi mu leen ne muy jox ñooñu xaalis ndaw yi di dem di wax ak ñoom ci ay kàddu ñuy ànd ak ñi nga xamante ne ñoo am kàddu kon bu fekkee ne Amadou moo taxaw tey jii tey di wax naan baykat yi bu amee majorité assemblée dina leen defal dara balaa mu ko doon def foofu mu def ko parcel Assainies bi nga xamante ne fa la jóge ñaata yoon la mu na nekk ministre Parcelles Assainies boo fa demee jigéen yëpp am mole ndax suuf su bëri naat ñaata yoon la nekk ministre xale yi nga xamante ne ñoo ngi Parcelles Assainies yor seen diplôme teg ko mënuñoo fexe ba liggéey kon Amadou Ba bu ñëwee tey ne day diggaate loolu naxambaay la suñu demee ci Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall bu war di am moom mooy warkat bu mag bi ndaxte Pape Djibril Fall ñi at élection yi nga xamante ne moo mujje ci euh, ci ci ci assemblée nationale ba askanu Sénégal soxlaa opposition bi soxla ci moom benn baatam daf leen ko xañ nañu wax moom ci loolu la tax mu xañ leen ko ba pare doon waxtaan ci suuf nañu leeralal loolu kat Amsatou Sidibé Amsatou Sidibé ñaata yoon la tax bi di di di wax li ko Pape Djibril Fall def wax ñuy seetu warkat ba ñëw ci Pape Djibril taxaw waaye nag ma ñëw wax ci jàmbaar ji nga xamante ne nag mooy président Ousmane Sonko di gor ñi xale yi bëgg ko lool te di leen wax ne li italien di wax farapoo ko lépp dina leer bu ñu doxalee tuuti daa ñu xam kii ak kii kan moo mën ndax nag Sénégal mënuñoo joxe bopp di rocc làmmiñ rocc làmmiñ bi mooy mënu jox euh, président Bassirou Diomaye Faye mu nekk président ba pare assemblée nationale ñëw duñ ko jox majorité loolu duñ ko def donc nag gars yi nañu raay seen jë rek sama sama sama xarit yu baax yi ma jàkkaar lool ñu leen di wax rek euh, ba beneen yoon fi ak 5 ans incha allah xëy na boo leen taxawee mën ngeen am dara mais nii fi ñu jëm nii euh, président Ousmane sunko jël na lépp ànd ak doomu ndeyam muy président Déthié Fall. am yi nooy def ak euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati woo ko doon yëkkati woon na ko ba muy nekk ci opposition bi di wax ni. Mhm. nguur gu xam fu mu jëm te itam xam bu baax yan tontu lay.